alhamdulillah baay kalaam ku jekk gaag doxin wu teewa maandu gaag tabe gaag nga xam ne baay laa la baay kalaam ku jekk gaag doxin baay jekk gaa doxina kundal kalama gu jekk gaa doxinu teewa mandu gak tabe ga nga xam ne baylo la la la la mam bay la la Allah waay kalam gu jekk gaa doxinu bay du xerew tey waa mandu gak tabe ga nga xam ne baay la la la la baay la la la baay tabax na juuma sampoon awaay tabax na juuma talim tere sampoon ay daara xamal ñu yàlla mam bay tabax nay juuma talim téere sampu nay daara xamal ñu Yàlla la la la mam bay la la la la bay la la bay barama la bay bay la barama ya ya la barama wa ya la barama wa Allah barama wa wa Allah barama jërëjëf euh, mbokku téléspectateur euh, Kossy TV ñu leen di ndokkeel baax di leen ziar di leen wàccee seen wàccuwaay gannaaw buñ jógee Kossy jullik euh, korite gi ñu ngi waat fii ñu ngi ci kër Seexa Seeru Tijaan na Caam yal na yàlla may ko fan bu gudd bu ànd ak wér gannaaw bu mu ooyee njaboot gi jàkkaarloo ak ñoom fas yéene joxe message bi nga xamante ne gannaaw bu ñu jullee ba pare yëppal na taalibe yi si jumaa Mawlana ñu nekk si xidma ak koor gi mu fas yéene war dajale njaboot gi santaat leen gërëm leen waaye tamit joxaal leen message bi nga xamante ne moom rek moo waraloon tey mu digal leen jumaa ji digal leen yoonu Medina bàyyi si koor gi ba koor gi jeex kon dañuy bàyyi rek nga xamante ne moo nekk Alhaji Saliou Lo mi nga xam ne mooy président daayira Cheikh Sirou Tidiane Niass Thiam rek mu daal di ubbi jotaay bi nga xamante ne ni moo fa jotale taalibe nañ def benn fàtte ñetti salaatu fàtte ñaadeel ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu ñu baamtuwaat ko jox ko Mawlana Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu taala anhu di ya wax ne jotaay bi nga xam ne moom lañ ma dara jaawoon fii ci tali bu bees muy njabootu Mayoro Fall gi tey la ay 9h pour yéen ñoom ngeen bàyyi ko xel dégg nga président kii suñ kii bi ak njaboot gi yëpp yéen ñoom ngeen bàyyi ko xel 9 la dégg nga moom la ooyee nañ ma ko ci kanam tuuti nii bàyyi seex ba mooma doon ñaareel bi tam mooy euh, danaa leen bégale tam ne ci euh, concours xale yi ci alxuraan bi ci ci këru gan euh, jox nañ ñi ci diplôme loolu nekk na ma rek lañ ko jox man ak yéen ñëpp ñoo ko bokk diplôme baa nga nelee ci yaakaar naa ne président moo ko jële woon mais bi ko biñ ko jëlee sax Euh, waxon nañ ko ne taxawal ñu photo la wala ñu vidéo la parce que dafa nek lu rëy Diplomates Fra nek lu tuti te tan nañ ci jigéen yi kenn muy man ñu jox mako ko te jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala ndax diplôme baa nga ne la seenaa li mën nga ko genn ngoon ko njobot gi ndax ñi gis ko rek doyna sant yalla denga su ko defé nga xamné damay dem rek mu jox mako ci kanam njobot geek famille beek ñepp tok waaye yàlla dogal ma ebal suñ président muy maam Saliou mu dem teewal ñu fa ci teewaay bu rafet ak bu yar ak teggin moo Fodé ñoom ñoo ñu teewaloon ci invitation boobu nga xam ne invité woon nañ ma ko man ak suma njaboot yëpp nag. loolu moo tax bi ñu paree rek ñoom dañoo jox seen liw diplôme bi ne ko taxawal ñu fotolo ak diplôme bi mu ne jéggal leen ma ko mu ne kon taxawal ñu vidéo la. caméra la mu ne jéggal leen ma ko loolu yëpp nag ci tegginam rek ak yaram mm, waaw mat lool liñ ko ebal pour mu dem teewal ñu fa mu matee ko sëkk ndax mënoon na cee photo mënoon na cee vidéo wàññiwu dara parce que teewaayam mooy suñ teewaay ñun ñëpp ndax mooy suñ président ñun ñëpp waaye tegginam ak yaram moo tax mu ne jox ma rek ma yóbbul sama yaay bi mu ko ko joxee tam bim mu génnee rek la ma woo téléphone na ma jox nañ la diplôme léegi damay laaj ndax ma indil la ko ndax ma bàyyi ba suba ma indil la ko booba guddi na ma ne ko déedéet diplôme bu bàyyee ko ci bàyyi du fanaan fenn lu du suma néeg indil ma ko mu xelu ñëw indil ma ko kon eh, eh, maa yéen a ko bokk wax nañ ma ne diplôme bi man lañ ko dara jaale maanaam man lañ ko jox ci jigéen ci fii ci kawlax te loolu nekk na loo xam ne nekkul lu ndaw loolu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ci lim def ci njabootam gi rek moom la moom la ñuy wéyal ñoom moom moom la ñuy saxalal parce que ku mel ni Cheikh Abdou Malick bu yëkkatee kii diplôme di ñu ko jox du man rek la ko jox man ak yéen ñëpp ñoo bokk jox na ko waa Kaolack yëpp ak waa àddina bi yëpp ak faydu bi yëpp yëpp ci diplôme bi lañ bokk ndax diplôme bi nekkul diplom bu ndaw kii souvenir la mais nekk na bonheur maanaam nekk na lu màgg ci yàlla parce que loo xam ne ci alxuraan lañ la ko jox ci guddi alxuraan la ko jox ci njongante alxuraan la ko jox lañ la ko joxe loolu nekkul lu tuuti kon man ak yéen ñoo bokk diplôme bi te lay firnde ne ñoo ko bokk moo di li ngeen taxawaay bi ngeen taxaw ci weeru koor bi ren moo waral rek gis nga yàlla ni mu programme jagleen ñu diplôme bi man ak yéen ñoo ko bokk bu doon médaille itam maag yéen a ko bokk comme ni ma ko waxee woon buy màkk maa yéen la buy Fass maa yéen buy Medina maa yéen la buy Taïba maa yéen la buy Koosi maa yéen la moo tax ma ne nañ leen woon diplôme ba pare soog a wéyal jotaay bi waaye bala ñoo ubbi jotaay bi ñu jox Cheikh Tidiane ay dara suñ sang bi mu ubbil ñu jotaay bi buñ paree ñu jox maam Youssou mu mu def waxtaan mu xool ndax mooy suñ président ci ci kawlax ak li ko wër yëpp ci tund sin Saalum dañoo wax ne baay dafa bëgg Saalum Baye dafa bëgg Saalum moo tax Saalum Saalum mi ngi firi salaamu gi firi mucc maanaam mooy firi jàmm moo tax bi Baye ñëwee rek wàcc Saalum addina bi yëpp a ko soxla Baye mais bi wàcc bi ñëwee rek Saalum la wàcc kon kuñ fal Saalum rek ci moomeelu Baye googu nga bokk kon buñ bu sang bi ubbee ñu jox la yow itam comme yaay suñu conseil euh, parce que euh, euh, dañuy wax ne emele ko ci conseil lan loolu amu ci rek loolu dafa gàtt loolu dafa tuuti ah président rek mu wéy waaw mu wéy rek président na wéy rek voilà waaye su gàtt boo ko waxee mu gàtt rek day gàtt kon buñ koy wax rek dañ koy xëcc waaw mu gudd waaw moo tax buñ paree rek nga wax parce que ñun dañoo am ci nguur ak yàlla gi cër waaye dañoo am tam ci nguur ak àddina gi cër ndax yàlla dafa am def saayir ak baatin def guddi ak bëccëg waaw moo tax ñu jox sang bi nga xam ne borom baax la te man maa ko ñaan ne ko sang bi mu ne sonn nga waaye noo mën di def na nga ñëw nga ubbil ñu jotaay bi ñaanal ñu yàlla ndax soxla nañ la fa ñun bëgg nañ Baay bëgg nañ Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu bëgg nañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nañ maam Ibra Faal bëgg nañ lépp yàlla bu rawatina dereti Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rawatina dereti Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu soxla nañ ko ci suñ jotaay ndaxte Baay dafa bëggoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba wax ne Yonent bi sallallahu alayhi man su ma sañoon ma nekk daal yow nga sol ma Baay ñi laaj ko ne ko ban suuf moo gën a barke ci suuf yëpp bàyyi noppi ba mu yàgg mu ne Medina moo gën a barke maanaam Medina yoon bi salaa salaam Medina gi yonent bi salaa salaam tëdd bàyyi mu ne moo gën a barke. kon kon ku bokk ci yoon bi salaa salaam su ñëwee teew ci jotaay boo xam ne ñun ñëpp njabootu yonent bi lañ njabootu Cheikh Tidiane lañ njabootu maam El Hadj Abdoulaye njabootu maam Baye lañ njabootu maam Irofa damay wax toujours ma ne. suma maam ba mu demee màkk ànd ak maam baay bañ demee ba ñëw ba ci aram bi maanaam ci kaaba gi baay dafa gestu maam Ibra Fall na ñaanal maam sëgg ba mu yàgg rek mu siggi baay gestu ko ne ko Ibra Fall ñaanal mu ne ko baay ñaan naa di sa ñaan gi gaaw na di mu ne ko man de ñaan naa mu ne ko loo ñaan Ibra Fall mu ne ko ñaan naa kaaba gi dëqee ko fii mm-hmm. ci màkka ñëw ci sa Medina ga bàyyi nag ba mu yàgg mu dal di muñ naa ah, Ibra Fall néegam yàlla bii nga na ne na dëqee ko fii ci màkk ñëw ci suñ Medina ga ah waaye yow de loo ñaan yàlla nangu la ko am na xaw ma nit ñi yëg nañ ko xaw ma yëguñ ko xaw ma gis nañ ko xaw ma gisuñ ko waaye kaaba ga dëkk ko na màkk ñëw fii ma dina bàyyi na yéen nant ngeen kontaan Baye Niass fuñ ne Baye mel Baye Niass mil di wut junne nen ba mel ca Baye Niass ñi nee ko Moustapha Baye Niass mu yi nee nañ de Baye baay seexul islam ci dar bu ñuul baay ñas nañ ci baay ñas mondu entier bi yëpp yaa bal moo de baay waaw loolu la moo tax nag eh, eh, kuñ ci eh, njaboot gi ku ci yore cër ci nguur ak nguur gi xamal na ci nguur a yàlla ga lañ la fale waaw du du ngëru saayar bi rek la de déedéet ca pee yàlla ba lañ la fale moo tax eh, gouvernement yàlla bi ak gouvernement bi àddina bi nii lañ def dañoo lero ci fii rek lañuy ñuy jëlee sottandikoo ko fale moo tax sang bi ay dara ubbi jotaay bi te njaboot bi nag ci yàlla ñu def mu ne ñu ngi sant yàlla di wax ñun ñëpp alhamdulillah ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam amin ya rabbi amin amin serigne mo ne ñu ngi wax jërëjëfe Baay Ñas mu ne mu ngi nuyu sayda di nuyu njabot gi yep di ko ndokel di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér amin yal na baay def ko amiin moom mi nga xam ne moo koy tànnal lépp moo koy waxal lépp moo koy wan lépp mu ne mu ngi ñaan yàlla baay moomu yal na ñu ko fi bàyyil ba ci kanam amiin baay bàyyil ñu fi Seyda ba ci kanam ci lu mu wér ak jàmm ak tawféex ak taysiir mu ne mu ngi koy ñaan baay te baay nangu na ko alhamdulilah mu ne mu ngi wax ci biir waxam ne maam Ibra Faal ak baay seen aj ba ba ñaanee mu ne maam Ibra ñaanal la maam Ibra ñaanoon mooy kaaba googu mu ne yàlla indi na ko Medina mu ne ci lu wér mu ne dafa am mag moo xam ne jamono moyewut mayewut ñu wax turam ndax kilifa la ci tarixa bi mu ne seet si na alaaji Abdoulaye digg bëccëg ne ko sa baay moo indi dama bëgg ñu dem ba ca xabru ba li may wax duma ko waxee fii alaaji abdoulaye ne ko baay yow naaj bu tàng nga ñëw danga waroon a dàllu bañ julli tisbaar ñu doog a àgg ci xabru bi mu ne ko gis nga oto bi moom kilifa googu mooy wax ne ko oto bi safoor fay ko dama foogoon ne doo fi ne moo tax ma ne ko bu mu fay oto bi boo fi nekkut te yaa ngi tey ba bu dee yaa ngi tey ba oto bi day turne rek fekk si la tey ba ndax lii maag yow ba ca baay ma dog kaa wax biñ àndee ñoom ñaar ba ca xabru ba kilifa gi jooy def waxtoog dara di jooy rekk mu ne alaaj Abdoulaye dama këf nelaw ci suba si gént kaaba ga buddee ko fam ne ñëw dugg ci xabru baay bi mu ne lii nii muy wax kilifaa ko nettali mu ne kilifa gu rëy nag ci tarixa bi mu ne kon ñaan nga Maam Ibra Faal ñaanoon baay nangu na ko mu ne loolu nag moo royaat ba ci doomam ji mu ne kon ñu ngi tàllal suñ loxo ñun ñëpp di ko wax amin mu ñaanal ñu yaa booy mu ne nga ñaanal ñu mu ne nga ñaan soxla yëpp faju mu ne soxla boo ñaan yàlla dana ko faj mu ne loolu du gan ci ñun ku ne xam na ne ijaabaam kon ñu ngi wax amin di yemale kàddu yi foofu di ñu baalaax Cheikhu Tidiane ñaanal sa ñaan du dégg bañ Cheikhu Tidiane ñaanal ko yaa daal ñaanal sa ñaan du dégg maa bañ yaa lay la allah la ya ibai seexu tijaan ñaanal ñetti salaatul fatiha addiyal ko maam baay buñ paree ñu baamtu ko addiyal ko maam Ibra Faal radiyallahu anhu ñu baamtaat ko euh, def kàddu Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu taala ak mboolem njabootu Cheikh Tidiane gën buñ paree baamtu ko addiyal jërëjëf jërëjëfe yaa nee na caam jërëjëfe yaa nee na caam jërëjëfe yaa nee na caam mbokk yi fi teew yëpp waa Kossy TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak jëmmam yaa booy maa ngi jël nuyoo bi teg ko sa di la ñaan nga wasaare ko ci mboolum xalif généraux bu ci Sénégal rawatina suñu xalifa ñun waa Kër ba Ñas muy Cheikh Mahi Ñas yàlla fi yàgg lool te wér nga jël tegal ñu ko ci mboolum imam rawatina suñu imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé yàlla fi yàgg lool te wér yow suñu yaay yàgg fi lool wér lool yàlla mën lool la yalla def la ci yow lo xamne ne lepp lo som sóobu rek daan ko gis nañ sa taxaway ci pays bi ñu ngi la ci sant loolu di la ci ndokal ci diplôme bi nga xamne ne mom lañ la jox di ci ndokal mbolum talibé yi man ak samay kaddu dam kay tek rek fu kat bi léegi daanale muy yaay ñaanal ak fu shérif wax ñu ngi koy nuyu momit yaay ñaanal jàmm ci àdduna bi ñaana ko Sénégal ñaana ko ci kaw la ndàngaan yi nii waaye tamit ñaanal ñu ay xéwal nit ñi sonn nañ nit ñi mar nañ yàlla maa ngi la ñaan nga ñaanal ñu am yàlla ba doy ba doy sëkk waaye tamit ci poche yi nga def ci alal xaalis te bu mu bañ egg ci xol yi maa ngi lay ñaan jàppandal fii ci Sénégal rawatina ci Kaolack ndàngaan bi nga xam ne ne moom lañ ma dénk ci Kaolack département bi sax laay wax. mission bi nekk lu yomb waaye gëm nañ ne nang ñu ko ñaanale ba mu teg suñ loxo soo ñu ñaanalee incha allahu rabi dina woyof toll ci ñun ndax na xam nañ duñ ci dara. firnde bi li wane duñ ci dara mooy yaa ñu laaj loo ñu laaj yaa ñu taxawloo ñu taxaw te buñ taxawee lépp lu mu métti métti tegu na suñ loxo ñoo ñaan nag ndam loolu noonu nga confirmer ñu ko ci élection yi ñu jëm ndax ndam lu rëy la ndam loolu tax président Macky Sall yàggul dara woolu na ma bu may dem fii laa déparé sa salle nga ne ma demal bu mu demee wax na yaakaar gu am ci ñun pour ñu jàppale ko maa ngi lay ñaan yaakaar boobu mu am ci man te su amee ci man ci yow am ndax yow yaay man man maay yow du ma ci dara damay demee rek sa ndigal ndam loolu euh, euh, yaakaar googu moom yàlla bu mu tas tey jii nii taalibe Baay am nañ cër bu rëy yàgg nañ ko am nag waaye tey ci saa dañoo jiite département bi nga xam ne ne moo nekk institution politique bu gën a mag ci département bi tey jii nii tey loolu taalibe Baay ko jiite donc ndam loolu ndamu taalibe Baay yëpp la moo tax ma ci wax sama mbokk taal bi ñoom ñëpp nañ ci jàpp mission bi suñ ko réussir taalibe yëpp ñoo ko ñoo ko réussir te xam naa ne doo ñu seetaan ci loolu incha allahu rabbi waaye comme nu ko Baye Niass waxee woon rek yàlla nañ dem ba nguuru àdduna si yëpp tegu ci loxo ay taalibeem maa ngi ñaan taalibe Baye bi nga xam ne ne moo war a nekk président de la république yàlla na sa njaboot gii nii te su ñëwee nag yàlla bu mu yàq dara ci ab taalibeem yaa xam fa nga bëgg egg yàgg sa njaboot yàlla la fa yàlla eggale kàddu cant yii laa amoon yu ma doon yu ma doon yëkkati fii nii di wax ne mbooloo mi yàlla nañu yàlla may dégg ak déggal yàlla nañu yàlla may ñu am ay kilifa kilifa gu mat kilifa suñ ko amee duñ sonn suñ ko amee duñ sonn yàlla nañu yàlla def suñu xol ñu nangul la yaay ndax loolu rek mooy solution bi taalibe ndigal taalibe ndigal taalibe ndigal yal nañu yàlla may ñu mën a ji jëfe ndigal yombul nag yombul waay yal nañu ko yàlla may ndax des fois du day jéggi xel comme nu ko bëgg di nettali rek ci élection yi dama ne kéemtaan daf cee am ba nga ne ma ñibsil fii ci Kaolack yow amool dara lay def Dakar te musuma jug sax Kaolack kay sama fii sa nënd xawoon naa jaaxle parce que dakaar nu ma fi ni ñu wuy see woon Kaolack nu mu méttee woon ma boole lu ma neex ak lu ma naqari ah dama ne gannaaw mooy sama kilifa ah naa jëfi ndigal rek wax dëgg yàlla bu ma jëfi ndigal rusuma ci. tey nag ay ni taxu nañ di bàkku nee na ñoo ma fal ñoom neen na ñoom ñoom ñoo nekk ci place yàlla ñoom ñoo ma fal kàddu googu nag yow rek laa koy bàyyee. dama bëgg nga wan leen ci élection yi di ñëw di wax ne ne ñoom sax seen fal ci man la jaar. loolu rek laa lay sant di la yàgg fi loolu te wér man li ma la ci tontu man sama bopp mooy yow yaa leen ni wan ki fal yow yaa leen ni wan ki la wan leen ki fal yow personnellement yàlla rek a tax ma la koy wax dëgg la wala dëgg yàgg naa laa wax de dëgg la wala dëgg wax naa ak yow Dakar wax naa ak yow fii waxaat naa la ko wanal ñëpp ki la fal yàlla neen na càmm moo la fal wasalaam. jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass suñu jërëjëfee Baye Niass si ron kii ñu ko waxee mooy Cheikha jërëjëf ndax suñu xamee baay xam maam Ibra Fall xam Cheikhu Tidiane xam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mos dara dara si jëmmi yàlla ji yaa tax bon jërëjëfee bàyyi ñet ji yaa moom Chérif ñu ngi lay nuyu di la wàccee wàcce waay bi la yàlla wàcce yàlla la soob mu def la ngay waa ahlul beyti yàlla la soob mu def la ngay waa kër Cheikhuna Tidiane yalla la sop, mu def la nga bokk si waa kër Cheikh al Islam Rajulaama Ñas radiyallaahu anhu yalla la sop nga bokk nga bokk si ñu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Fall yalla la sop nga bokk ñun jotaay bi ñu lay wax jërëjëf ñu ngi nuyu mbooloo mi di jël si bi sëriñ bi ñu ngi nuyu suñ sëriñ suñ yaakaar zahiran wa batinan muy Cheikh Zeyda ya ne Thiam ñu ngi koy nuyu si bunta maam Ibra Fall ñu ngi koy nuyu bunta Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu si bunta Cheikhuna Ahmada Tijani radiyallahu anhu waaye ñu ngi koy nuyu si bunta rasulullahi sallallahu alayhi wa di ko ñaanal yàlla wér ak fan wu gudd. ak fan wu gudd mooy suñu tiitar. man lu lay wax wax naa ko bakk dembu ci Dakar am ko wax ne ma da nga bëgg diiw ma ko bëgguma ko Cheikha laa bëgg ku bëgg Cheikha ma bëgg la ku ko bëggul xaw yow dara xaw yow tous ak ko mëna do ak lo mëna xam jëlal lim defal mo rek ñu ko def mo ñu ko defal kenn defaluñu ko kenn xam sëriñ bo xamne moo la téye si loxo ne la kaay si lu baax a ngi nii kaay ku baax a ngi nii kaay liggéeyal yàlla bañ la xul la kenn noona xul la kenn xeex la xul la kenn sa zaahir ak sa baatin lépp di yàlla sëriñ boobu yombut di ñaan cheikha njaboot gi ñoom suñ téye mën nañoo toqi waaye nga téye ñu buñ buñ rëcc buñ dëpp buñ gis suñ bopp buñ deltu gannaaw bu yàqute buñ yàqule. Serif jërëjëf euh, suma dafa sedd ndax da wax kàddu ñu dimbale. di nuyu jotaay bi yëpp nag maa ngi jégalu Cheikha kontaan ne ñu ngi lay ndokkel si raaya bi la bàyyi jox bàyyi la ko jox de al waladu siru abi cheikh abdou malik mooy cheikh ibrahim maam alhaji abdoulaye ñes mu ne doom firiwut doom du moomam lay firi bon cheikh abdou malik ibrahima ñes su xoolee ni jaami yàlla yi bëree mu tànn la si jël bu tedd bii teg ko sa loxo nga jëlaat ko jox ko njaboot gi ne ñëw ko moom ñu la ndokkel laa xarwa samp nga daara téeméeri taalibe juróomi taalibe xan mu jot yàlla may na ay kàng ñu ma ko alquran bon diplôme mu alquran bu ñu ko joxe xëyoo nga ko ñu lay ñaanal yàlla yéen nga ko mbuunloo bàyyi la ko jox xamul sikk bàyyi la ko jox yéen nga ko mbuunloo yaa ngi mbooleem njaboot gi ak mboolem julit barke Mawlana Cheikh Ibrahim barke Mawlana Cheikh Ibrahim barke Mawlana Cheikh Ibrahim ñu gërëm ñu sant. yaay saydoom gërëm nañ la laay man Seexu Tijaan waaw Seydoom gërëm nañ la la la la la la la la waaw illa na ya bay la la la la la الله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لا إله واو جرى ما يا لا إله لا إلا الله لا إله يا لا إله إلا الله يا سيدم قرم لا إله لا إلا الله لا إله Tijaani laa ilaaha illallaah waaw waaw kamil laa ilaaha waay kamalo ya boy laa ilaaha illallaah boy la la o le da la ya boy la la o na da la la ya boy la la o le da eh, la la ya boy la la o eh, le da kontaan ngeen Cheikh Tidiane ñun kontaan nañ ndeysaan ñu ngi sant yàlla hmm. di julli ci yontam bu tedd bi salaa salaam di sant suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye sama yaay mu ne alhamdulilah mu ne ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonentam bu tedd bi sallah salaam tey sant sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu jërëjëfee baay jërëjëfee baay jërëjëfee baay jërëjëfee baay jërëjëfee maam Ibra jërëgeen jëf yéen itam mu ne mu ngi wax jërëgeen jëf ñun tamit yaa booy jërëjëf yow it ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ndokkeel mu ne mu ngi sant mu ngi gërëm te mu ngi ndokkeel maa ngi ndokkeel ñëpp mu ne mu ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel mu ne mu ngi ndokkeel julliti àddina bi yëpp umma islam bi yëpp. mu ne mu ngi ndokkeel umma islamique bi yëpp. mu ngi ndokkeel këri diine yëpp. mu ne mu ngi ndokkeel këru diine yëpp. ak xalifa yëpp. xalifa yëpp mu ngi leen di ndokkeel. waaye di jiital ci ndokkeel boobu. mu ne mu ngi jiital ci ndokkeel boobu. sëñ waajur. waajuram. Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Cheikh Mahi Ibrahim Niass. muy xalifatul haam fii ci Medina Baye. muy xalifatul haam fii ci Medina Baye. ñu ngi koy ziare. mu ne ñu ngi koy mu ngi koy ziare. ñu ngi koy ndokkel. te mu koy ndokkeel. mu ngi koy ziare ci weeru koor wi jàll. mu ngi koy ziare ci weeru koor wi jàll. di ko ndokkeel ci air bi. di ko ndokkeel ci eet bi. di ko ndokkeel ci bésu ajjuma ji. di ko ndokkeel ci bésu ajjuma ji. di ko ñaanal yàlla wér. yàlla yàggal ko ci suñ kanam. yàlla yàggal ko suñ kanam. te te wéral jëmm ji. Uh, moteli lépp sembam. te mottali lépp sembam. ñëpp ñu bokk koog mu ne ñun ñëpp ñu bokk koog moom. buñ gëstoo gis ko buñ gëstoo gis ko. waaw gis ko. aywa bisimilah. <laughs> عليكم السلام ورحمة الله سيرين دي نيغ لين دوكيل باب دا جالن كو بيننا جمعت وجودا هيبة وجلالا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 وصورة إبراهيم تبقي تذكراها إذا أبى للمولاه العلية فأكرى متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير لو كان مؤصرا أنا النفس والآفاق مهما رأيتها تراني فإني كله من اندرابي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله دك اللي مولي حجر الله الله سر الله بايكوير الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله بقل باي مولي نقبل بولخار نولي وقل والله دين خاطر الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله

إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله ومن فعله نهج إلهي ودينه وليس سواه إنما قوله قوله بنى قبة الإسلام بالوحي داعيا إليه جميع الناس قد ما ظله قديمك هذا في باريس معوقا سوى لدى الوادي النقل ثم وصله رأيت رسول الله جهرا ويغلة بباريس هل ذاك محل محله رأيت رسول الله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 الله أخير لا إله ظهير لا إله إلا الله بطين لا إله إلا الله فناء لا إله إلا الله بقاء لا إله إلا الله تجلي لا إله إلا الله ترقي لا إله إلا الله الحمد لله يعني أنا خمنا أنا أري ذكر جمعة ميجي واجي جوت دي la sant bi ma lay oo dama la doon tooñ rek comme yooyu ma la daan tooñ naa maa ngi toog ci alim bi nga ne ma dañ fi am jotaay ma dégg sikar si nga ne ma ñëwal bi ma ñëwee ma fekk ci tamit koo xam ne shérif la te ñii ñooy azar rasulullah sallallahu alayhi yokkaat nga ñu mu nekkaat tamit ngoon ak àjjuma te wax nañ ne bu ñuy séntu àllaaxira yàlla na yéex ñu ngi koy séntu ci àjjuma diggante tàkkusaan jàpp timis Cheikh Tidiane namul ñun tànnal ay taalibeem ba bés boobu buy ñëw ak heure bi mu fekk ñu nekk ci baati laa ilaha illa allah wa man qaala laa ilaha illa allah daxal al janna di ñaanal yàlla tamit son excellence président futur président de la département de Kaolack muy alaaji yusuf Benzelo mi nga xam ne yenuwu ko boo taseeg moom sa doo jàpp ne kii mooy di loolu yëpp sa yar la waaye loolu tamit mi ngi jugee ci maam Ibra Fall daj dëpp gaa ngi noonu ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk taxawaay bi yaa ne na ñu ngi lay ñaan ne jotaay bii na gën a nekk jotaay boo xam ne dañ koy def ci mbéy man bi ma déggute rajo yi tout sama départ mu jigi ma toog gis daal yi ma ne fii daal yi nekk fi la njëriñ nekk ci laa eeg ñëw imaam daf may nettali sànq ne dafa am ñetti xarit la min doomu aadama am mu ne xarit bu njëkk bi dafa am benn xaritam bu ñëw ci moom ne ko damaa rey nit mu ne ko ah waxoomoon li génn sama nekk mu ñëw ci xarit ci ñaareel bi ne ko ah man de damaa rey nit mu ne ko xaaral ma ñëw sol mbubb ñëw gunge la bi mu ko gunge ba ci yoon mu ne ko man fii laa a yem mu ne xarit ci ñetteel bi bi mu ñëwee ko rey naa nit mu ne ko xaaral ma sol sama yére ñëw gunge la foo dundee ma dund foo dee ma dee fa xarit bu njëkk bi mooy yàlla na yéextu ñu ñëpp nit ki bu fàddoo jabaram ak alal yi duñ génn kër gi xarit ñaareel bi mooy ñi nga xam ne bu ñu dee ba te jumaa ja ñooy taxaw seedale yóbbu la ba te seen ñu dugal la wan la gannaaw xarit ci ñetteel bi mooy jikko jukko ju baax ji nga ànd mooy des yow fa nga nekk yaa ne na ma waxaale ne da nga ànd ak sëriñ boo xam ne sëriñ bu jara àndal la muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass imaam dañoo toog benn bés mu ne seeti Baye Ilimane Niass ñu dem mu dem di laaj ci jàmbaar yi bàyyi xam ngi xam na ko loolu romb na ko mu ne ko daal nettali benn bés jógee nañ njaareem ñëw wàcc nge euh, ngeengi ñëw di xaar train bi express bi pour mu ñëw mu dugg ci ñëw kaw la taxaw bi train bi di taxaw rek am ku wàccee ci train bi ne ndax yaag sëriñ bi yéen a ànd mu ne ko waam mu ne ko éegal teel ko sama place saxaar gi dafa fees lool ba kii te kii war ta taxaw dafa war a toog bàyyi ma ne moom mu éeg teel bàyyi place ba bàyyi éeg mu jox ko laata saxaar gi départ bàyyi jug dem ci toilette di eesal njàpp boobu tubaab yi foor yooyu ñu ngi fi woon tubaab bi ñëw rek toog mi ngi ànd ak garde corps bàyyi di man demoon na guerre mondiale kii ci 14 kii ci guerre mondiale bi moom ñamoota équipe tubaab parce que gis na garaat yi mu takk tamit garde corps baa ngi taxaw mi ngi jaaxle bu bàyyi ñëwee nu muy def baay bi mu ñëwee ko jugal sans waaj waa ji laa ko mën na ko yow xëy rek xaraam bi man may ju man may ma jug ngay toog sans jugal waa ji wax rek bàyyi nit ko ko rek jàpp rek sànni ca biti toog waa ji di joxoñ bàyyi na ko boo ma joxoñee sa baaraam yi doo àgg fii di gaar ba mu ne beneen bi mu toog ba ngireer ba guddi mu oo ko na ko ilimaan ñëwal mu ñëw mu ne ko taalal oto bi mu taal mu ne ñu dem ba ci digg àll bi mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne bàyyi wàcc dugg ci àll bi am na fa lu ma waxtu ilimaan mu ne mi ngi jaaxle ba baay boobu jamono jooju xam nga baay ni koy nit ngi di wëree mu ngi naan bu ma demee di ma wax taalibe bi nanga mu ne mu toog yaa mu seet benn ca leer tiim jaww ji di leer bàyyi ngi tari alxuraan di ñëw yow tamit boo duggee ci jumaa ji tur yàlla gi dana riir boo duggee kër imaam ñun ñii nga xam ne ñooy surga yi suñ poos yi dana dox dana dana solo danañ gis koo xam ne ku ànd ak yar la te loolu rek mooy dëgg maanaam loolu li ma leen ci waxal mooy jikko rek moo mën a àggal nit ki fa mu àgg alaaji Yusuf mi bu tasee ñun daal beneen melokaan lay am boo xam ne boo bokkut tak melokaan boo xam ne nit ki la xam ne am na nombre ñu ne te ku ne xam nga pouvoir boo dooyee maire wala nga door dara ci état bi da nga koy wane di ko wane boo jëyee kër sëriñ si toog ci kaw moom na mel la mel. ci jumaa ji tamit bi ma la gisaatee ci xadra jumaa bi ni nga doon def mooy ne yar yi da am sëriñ ñu wax ne sëriñ mënu laa àggal fa nga bëgg a ñoo ñooñu dañoo réer. taalibe yaa ne ne ku leen gis doo leen gis si musique doo gis si caaxaan ñu nga téye seen ko bu ñu wekk bi ñu ngi téye bi yaa ne ne loolu yëpp sa liggéey la ñu ngi ko ñaana yàlla di ñaanal yàlla shérif di sàkku ci moom ñaan shérif hada aydina di bàyyi waxoon bi mu demee te saad ne ko ateytu ko xafifan uridu arji o siqala ñëw naa oyof toll bëgg naa bu may ñibbi fees dell bi mu ñëwee ba Dakar heure yi a ñëw julli àjjuma jot baay amul lu mu jëndee essence dara ne ko Ibrahima Diop ne ko ah yow yaa waxoon ne xabru wali yàlla boo taxaw boo ñaanee yàlla mu ne ko wallaay du ma ñaan wali yàlla yàlla jox ma ko rek téléphone bi sonné mu dem ci Senghor nekk te Senghor boobu mi ngi ko dencal fanweeri million moom ak mbaaxam ak tabeem bi mu ñëwee am na secrétaire bu ñëw ci moom ne ko baay xaalis bi nga indi nag attan nga koo séddale yëpp waye dama la tey gisal projet mu ne ko projet bi lan la mu ne ko mën naa la te ubi société yo xamne ne di nga fiy dund ba joge fi sa njaboot di ci tete mu ne ko loolu nga gis mu ne ko mu ne ko man de Ibrahima gisuma loolu mu ne ko loo gis mu ne ko damaa gis lépp luma am jox ko yàlla luma soxla laaj ko yàlla dëkk bi sel lañ ñi fi nek ñëpp am xam-xam waye setal yan keur ñoy xumbu wal qima fi jeebi bi kay at ki maa fi xeybi bi rek jami yàlla yàlla amul dom amul baay amul yaay waye amna njabo al khalqu iyalullah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 العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقب بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقب العقب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين آمين يا رب آمين آمين آمين sant bu baax alhamdulilah. mu ne mu ngi sant bu baax di waxaat alhamdulilah. ñu ngi wax alhamdulilah. mu ne ñu ngi wax alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. fi ñuy waxe jërëjëfe baay. mu fi ñuy waxee jërëjëfe baay. bay daane rek. dereti bàyyi ñëw. du suñ kiiraay de. mu ne du suñ kiiraay de. li muy wax nii di ree. mu ne li muy wax nii di ree. walli dëgg la. mu ne walli dëgg la. amul benn kiiraay. mu ne amul benn kiiraay. waliwu dëgg ngi nii. mu ne waliwu dëgg ngi nii. waliwu dëgg ngi ni waliwu dëgg ngi nii. mboolem deret ju bokk ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala wala bàyyi ko ñaan. mu ne mboolem deretu Cheikh Ibrahima Niass Baye waliwu la ndax moo ko ñaan te yàlla nangul na ko. oyo fudde. mu ne oyo fudde. ñun nañ gëm ne. mu ne ñun nañ gëm ne. Baye ànd ak ñun. Baye moo ànd ak ñun. daa iman daa iman. te wax na ko léegi. mu ne wax na ko léegi. sant yàlla bu baax. mu ne sant yàlla bu baax. ndax. ndax. doy na ci rek. doy na ci rek. ñu def jotaay. ñu def jotaay. deretu yonent bi salaa salaam ñëw teew. deretu yonent bi salaa salaam teew deretu Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye Radiya ñëw teew. deretu Maulana Cheikh Ibrahim teew deretu maam Ibra Fall teew. deretu maam Ibra Fall ñëw teew. lan moo ëpp loolu. mu ne lan moo ëpp loolu. ñaan bi mat na. mu ne ñaan gi mat na. siyaare ante bi mat na. siyaare ante bi mat na. lii lañ doon wër. mu ne lii lañ doon wër. ku ne xam na ne. mu ne ku ne xam na ne. Baye Mokhtar. Baye Mokhtar. pour mu dem ci jotaay sikar yombut. pour mu dem ci jotaay sikar yombut. mën na koo def. mën na koo def. waaye iidoo ko jaami yàlla yi rek. waaye iidoo ko jaami yàlla yi rek. waaye ci baay la bokk tigi sax. waaye ci baay la bokk. tigi baay lañ ko tuddee. baay lañ ko tuddee. baayam nekk doomi baay. baayam nekk doomi baay. dañ koo dàkka dàkkantalee baayam. dañ koo dàkkantalee baayam moo tax ñu di ko wax Baye Mokhtar. moo tax ñu koy wax Baye Mokhtar waaye maam baay la tudd. waaye maam baay la tudd. kon kooku buñ jotaaye mu ne kon kooku buñ jotaayee. mu fekk si deret yonent bi ci jotaay bi. mu fekk si deret yonent bi ci jotaay bi. kon Seexu Tijaan moo teew. Seexu Tijaan teew Baay teew Baay teew. yonent bi salaa salaam teew maam El Hadj Abdoulaye teew maam El Hadj Abdoulaye maam Ibra Fall teew. maam Ibra Fall teew. dara ëpp ko. mu ne dara ëppul ko. liggéey bi nga xam ne liggéey ngeen ko ci jumaa ji. mu ne liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci jumaa ji. du nax saay mukk mu ne loolu du nax saay mukk alhamdulilah loolu moo waral sang yi teew fii de mu ne loolu moo waral sang yi teew fii de ku ne xam na ne ajjuma dafay xat ku ne xam na ne ajjuma dafay xat ñaareel bi jóge ko nañ ci korite nit ñi dañuy sonn ñaareel bi jógee koo nañ ci korité nit ñi dañu ñëpp dagg nañ seen yi waaye ñëpp dagg nañ seen nelaw yi ñëw toog ñaanal leen yàlla ñaanal yàlla xoolal sikkar bu am xaal bi mu fi sikkar mu ne xoolal sikkar bu am xaal bi fi sikkar du dërëm yi de mu ne du dërëm yi yi nag daf leen koy iiroo mu ne dërëm yi nag daf ñu koy iiroo gis nga walliwu mu ne gis nga waliwu dafa bëri nu muy làqatoo dafa bëri nu muy làqatoo ci melaw bu ne ci melaw bu ne la lay iiroo la lay iiroo waaye mu ne bu fekkee koo gis mu ne waaye bu fekkee koo gis ne du waaje ne du waaje bàyyi mu ne waaje dana la raw bàyyi mu ne waaje dana la raw moo tax njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Baye kenn tuutiwut radiyallahu taala. mu ne moo tax njabootu Maulana Cheikh Ibrahima kenn tuutiwut. ku ca bokk rek. ku ca bokk rek. baaye wane jëmmam ji. baaye wane jëmmam bëgg giñ ko bëgg. bëgg giñ ko bëgg. di ko tudd. di ko tudd. ci la ñëwee na maa ci la ñëwee na maa ngi. waaye kuy oo nit nag. waaye kuy oo nit bam dikk na la maa ngi. bam ñëw na la maa ngi bul am kiiraay. bul am kiiraay. ah. nit ñi dana ñuy am kiiraay. nit ñi dana ñuy am kiiraay. ijaab yi pour ñu xëttu ko. ijaab yi ba jëriñu ci jëm yàlla ba jëriñu ci jëmm yàlla maase. maase suma la. sama morom la maa ko mag. maa ko mag xale la. xale la amul xaalis. amul nii la mel. nii la mel naa la mel dina melu nenn wëliwu la. melut nenn mu ne wëliwu la. wëliwu dëgg mu ne wëliwu dëgg man de la ma leen éene woon. mu ne moom de lam ñu éene woon. man yàlla xamal na ma ne. moom yàlla xamal na ko ne. yàlla defal na leen ko. yàlla defal nañu ko alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah mbaax rek leen éene woon mu ne mbaax rek la ñu éene woon. yàlla xamal na ma ne yàlla defal na leen ko. ne yàlla xamal nañu ne yàlla defal nañu mbaax googu. fi ñuy waxee. diplôme bi mu ne fi ñuy waxee diplôme bi pareeguñ pareeguñ di gërëm Cheikh Abdou di gërëm Cheikh Abdou Malick keneen ci njaboot gi ñëw teew na maa ngi nii keneen ci njaboot gi ñëw teew na maa ngi nii te nekkul ne te nekkul ne nit ñi nit ñi kenn moomut leen kenn moomut leen nit kenn mënu ko jënd nit kenn mënut koo jënd bu fekkoon ne dañoo jël oto dem jëli ko fekkoon dañoo jël oto dem jëli ko ñu ne dañ koy yónnee jëli ko wala ñu ne dañ koy yónnee ko waaye xaal bi waaye xaal bi xaalu baay bi xaalu baay bi moo ko indi moo ko indi daf ma oo daf ko oo rek di ma ndokkeel ci julli gi di ko ndokkeel dégg si kër si dégg si kër si ko dañoo nekk nii ci jotaay mu ne ko dañoo nekk man ak njaboot gi man ak njaboot gi mu ne maa ngi ñëw léegi mu ne ko maa ngi ñëw léegi te su ma ñëwee dana si kar te su ma ñëwee danaa si kar loolu yombut. sama yaay mu ne loolu yombut. njabootu baay tuddal la yàlla. njabootu baay tuddal la yàlla. ak tono biñ am ci jëmmi yàlla ji. ak tono biñ am ci jëmmi yàlla ji. ak niñ nekkee wurus wu foor. ak niñ nekkee wurus wu foor jamaa lañ. du kiiraay de. mu ne du kiiraay de. gis nga li muy reen yëpp. mu ne gis nga li muy reen yi dafay iidu jaami yàlla yi. dafay iidu jaami yàlla yi rek. waaye walliwu la. nit ku baax la. mu ne nit ku baax la. ku baax nag. mu ne ku baax nag. duñ ko wëri. duñ ko wëri. ku baax. ku baax da ngay toog rek mu ñëw egsi. da ngay toog rek mu ñëw egsi noonu lañ doon jëriñee jaam yàlla. mu ne wali wi noonu lañ doon jëriñee jaam yàlla. doo leen foog doo foog. dañuy toog nag ne jameex. dañuy toog rek ne jameex. nga ne kii fu mu dëkk. nga ne kii fu mu dëkk. kañ la fi ñëw kañ la fi ñëw. foogu ma woon ne dana ñëw. foogu ma woon ne dana ñëw wala xaw ma ko wala xaw ma ko. noonu la waliw di jëriñee nit. noonu la waliw di jëriñee nit. mais waliw du programme nit. mu ne waliw du programme. maanaam du programme nit. mu ne du programme nit. tey kenn waxul ne dem naa ci ëttam bale na ko kaay. mu ne kenn waxul ne dem naa ci ëttam bale na ko kaay. xañ na sax am na ñu ko romb nuyu wuñ ko. mu ne xañ na sax am na ñu ko romb nuyu wuñ ko. lan. lan. maanaam muy kafam gu ëpp gi. muy kafam gu ëpp gi. muy mbubb mim iidoo jaami yàlla muy mbubb mim iidoo jaami yàlla waaye kenn tuutiwut ci dereti baay waaye waaye dereti baay tuutiwut mu ne dereti baay tuutiwut deret joo xam ne moo doon yonent bi salaa salaam deret joo xam ne moo doon yonent moo doon Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu moo doon Cheikh Tidiane ba pare nekk xutbu jamono ba pare nekk xutbu jamono nekk sowetaas nekk sowetaas waaye sowetaas du tuuti mu ne sowetaas du tuuti ah bañ na ko ba docteur sax ku ñuy ku ñuy faj ne la dañ lay sampal sewetaas mu ne docteur yi sax ku ñuy faj ñu naa la dañ lay sampal sewetaas maanaam perfusion yi maanaam mooy perfusion maanaam li muy firi ñu ne sewetaas lañ ko sampal waaw mu ne li muy firi ci olof mooy sawe pour mu sawe kon kooku ku da meññee ci moom rek ku la mu ne kooku ku meññee ci moom rek ku rëy la moo tax moo tax liggéey bi ngeen liggéey liggéey biñ liggéey nekkut liggéey bu ndaw mu ne nekkut liggéey bu ndaw gën leen a euh, euh, continuer seen activité. mu ne nañ gën a continuer suñ activité. liggéey ngeen ko ci anam bu sell bu rafet. liggéey nañ ko ci anam bu sell bu rafet. gis nga yàlla ñàkkut bopp. mu ne gis nga yàlla ñàkkut bopp. su fekkoon liggéey bi tilimal ngeen ko. mu ne bu fekkoon liggéey bi tilimal ngeen. dana feeñ ci jotaay bi. mu ne dana feeñ ci jotaay seen xol yi tilimoon fekkoon suñ xol yi tilimoon na. dana feeñ ci jotaay bi dana feeñ ci jotaay bi. waaye firi gi ngeen firi seen xol yi. waaye firi i ñu firi suñ xol yi. ñun liggéey bi. bokk ak ñun liggéey bi. dagg seen nelaw yi. dagg nelaw yi dagg seen kër yi. dagg kër yi. góor ñi dagg seen jabar yi. góor ñi dagg seen jigéen ñi dagg seen jëkkër yi. jigéen ñi ànd ak seen jëkkër yeeg seen doom yeeg seen jabar yeeg yëpp. ànd ak jëkkër yeeg doom yeeg jabar yeeg yëpp. ñëpp ci liggéey bi ñëpp ci liggéey bi. loolu nekkul lu tuuti mu ne loolu nekkul lu tuuti te liggéey ren bii mu ne te liggéey ren ni ma ko waxee keroog Seyna Moussa ci jumaa ji rek ni ma ko waxee keroog Moussa ci jumaa ji bu fekkee ne nekkoon na téeméer daaw fekkoon nekkoon na téeméer daaw ren ay million la ren ay million la ndax ndax ñi ko taxawee ñi ko taxawee matee nañ ko sëkk matee nañ ko sëkk waa jumaa ji dalal leen waa jumaa ji dalal ñu jiitu ca jumaa ji nag jiitu ca jumaa borom jumaa ji borom jumaa ji mooy imaamu akbar mooy imaamu akbar imaam Cheikh Tidiane Cissé imaam Cheikh Tidiane Cissé suñ waajur waajur suñ papa papa suñ imaam imaam ñu koy ndokkeel ñu koy ndokkeel ziyaara di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci yàlla yàggal ko suñ kanam amiin taxawaayam taxawaayam ci jumaa ji rafet na ci jumaa ji rafet na taxawaayam ci tata tatafu gan ñi ñëw ci tatafu gan yi ñëw rafet na liggéeyam ci jaami yàlla yi rafet na liggéeyam ci jaami yàlla yi rafet na alxuraan mu nga xam ne moom la maamam wëcc fii ci Medina rafet na mu muy papa Cheikh Maye liggéeyam moom itam ci ci eh, ci ci firi alxuraan mi ci jumaa ji rafet na xalifa bi liggéeyam ci rafet na Cheikh Abdou Mali itam liggéeyam ci alxuraan bi moom itam rafet na ci xale yi nga xam ne ñu ngi doon jongante ci wàllu concours bi ci alxuraan moom itam rafet na yal na yàlla yàggal taxawaay amiin yaa rabbi amiin defal nañu tiraanga berneel nañu amiin ndax lii mooy éene mënoon naa wax rek ne bu ma demut du joxe du ma jox diplôme mënoon naa wax ne ku bokk ci man bu demul maanaam ku ma jege ku mel ni Cheikh Serif bu ñëwut du joxe wala yéen waaye Seyna Aliou dafa dem rek daf ko bett sax Seyna Aliou mii mu demoon sax daf ko bett dafa dem rek mu ne ko am yóbbul ma yaaneen ne diplôme bi nga xam ne ñun ñoo ko ko bégale ñoo ko ko jox terale ko ko ci ci ci concours xale yi. kon loolu nekkul lu tuuti mu mu defal ñu ko nag mu nekk lu rëy loo xam ne ndam la ci mbooleem julliti àddina bi yëpp nag ndam la ci umma islam bi mais ndam la ci waa Sénégal ak waa diaspora bi ndam la ci suma njaboot gi nekk Sénégal mais ndam la ci suma njaboot gi nekk ci diaspora bi muy ñu nekk Arabie Saoudi ñu nekk Nigéria ñu nekk Londres ñu nekk Amérique ñu nekk siwis ñu nekk Italie ñu nekk Espagne ñu nekk France ak njaboot gi yëpp Allemagne ak ñëpp ndam la ci njaboot gi yëpp ak njaboot gi nekk Sénégal mais rawatina nga ñi nga xam ne bii ñoo jiite ndogale vraiment euh, Sénégal jàmbaar lañ. Ibrahima bi tey ñu ngi koy ñaanal yàlla. amiin yàlla delloo ko ci sago. amiin amiin mi ngi tey ci faj yaramam. mais ñu ngi koy ñaanal yàlla na wér. yal na del dellusiwaat. ci néegam ci njobootam. yàlla na yàlla defal ko jàmm. ci yaramam. yàlla na yàlla wéral ko. taxaw na taxawaay bu rafet. ci liggéey bi. am na mission bu mu ci yore moo ko doxal ba keroog bi muy dem Dakar. maam yu si bokk na sax ci ndogu yi bañ demee ñu ne ah ndax président dana joxe ndogu ren maanaam dana bokk ci ñuy servi mu jiitu di servi njoboot gi yëpp bootu ci gannaawam may leen taalibala pal du du sensé taalibe pal mbubb la rek mbubb la rek jëmm jaam fa mais li sang bi wax léegi ne maam yi su soppeeku maam yi su nekkul kuy soppeeku parce que ki mu àndal du soppeeku soppeeku mooy ki nga xam ne bii ki nga àndal dafay soppeeku bu bulaa tey nga ànd ak moom bu la wala mu ne la nañ bula tey tey buñ war non non du kooku ki ki mu àndal baay la te bàyyi du soppeeku baay bañ ko xamee ci yonant ga ca seexu tijaan ga ca xutboom ga ba léegi nii mi ngi nekk di bàyyi nekk di baxru da ngay ñëw kay jël meloom bi waaye moom du jël melow kenn moo tax euh, président ñu ngi lay gërëm sa taxawaay ci ci ci ndogu yow itam macha allah jërëjëf yal na yàlla barkeel la taxaw na ci kemt lay kàttanam ci côté bu nekk nag côté bu nekk moom ak ay soxnaam dafay jiitu rek ne acca doomam yi sax acca acca leen ba léegi ni melaw taalibe moom lay dund ci ci kër Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye damay wax ne man awma taalibe man ak taalibe yëpp ñun ay taalibe Baye lañ man awma taalibe ku ci doon dara mooy am dara waaye ku ci doonu dara doo am dara man ak yéen ñëpp taaliba baay lañ te li koy dëggal mooy dara dereti baay bi fi bàyyi ko léegi nii mooy feeñal ne rek man ak yéen ñëpp ay taalibe baay lañ su ma leen bootee rek ca baay laa leen di wàcce ah gërëm naa képp koo xam ne téye nga ci benn kudd sax maa ngi lay ñaanal yàlla yal na bàyyi fayanteeg yow benn kudd rek ku ko ci téye wala benn dërëm ku ko ci def wala képp ku ci ñaan yàlla wala ku ci kontaan ci sa xol rek yal na yàlla fay jaay Cheikh ci barke yonent bi salaa salaam barke Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu taala barke sama maam radiyallahu taala barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala barke sama maam Ibra Fall radiyallahu taala barke sama maam maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu taala barke sama maam Cheikh Omar Foutiou Tall radiyallahu taala ci barke Alquran barke mbootam Alquran barke Salatu Fatih barke mbootam Salatu Fatih barke pay bi barke mbootam pay bi barke mbootam waxtu bi barke allahumma salli ala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقاتم سبق الناس راق بلا قولا إلى صراطك المستقيم على آل قدر مقدار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقاتم زواغ الناس راق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا قدر مقدار اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم زواغ الناس راق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا قدر مقدار subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun salaamun alal mursaliin alhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf yaay booy caam laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak baax yéenay liggéey faydu baay bi ci di baraham